asalaamaaleykum mbokk yi déglu dalee nag jàmm culikaay bii di Sud Quotidien daal di nay njort ne tey jii suñu moytuwulee ajjuma bu tàng jër la ñu nar am fii ci biir dakaar la ko waral moom mooy ne mouvement Y'en ak waa FRAPP France Dégage dañoo bëgg a amal tey jii ab doxum ñaxtu wante préfet daf leen wax alamuk culikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñii xamal ne loolu taxul ñii nga xam ne nag ñoom ñooy ñoom caat ak seen i ñooñ daal di dellu ginnaaw ndaxte ñoom daal dinañuy xamle ci nii bàcca ne dinañu amal seen doxum ñaxtu ndaxte li leen tax a jóg lu leer la dañoo bëgg wax ne fu mu nekk nii yoon a ngi jeng te loolu moom faw askan bi yëpp daal di koy xam ndaxte lu weesu dakaar amaat na tamit yeneen doxum ñaxtu yoo xam ne ñoo ngi koy xaar eh, ci biir diwaan yu nekk fii ci biir Sénégal yëpp colikaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal kon ne ñii nga xam ne ñoom ñooy waa mouvement Y ak waa FRAPP France dégage ñoom nee nañu ala mukk seen doxum ñaxtu dañu ko fas yéene amal colikaay bii di Sud Quotidien di ñëwaat sax ci lan moo tax eh, tey ji préfet Mor Talla Tine préfet bu Dakar daal di tere li nga xam ne nag moom mooy seen doxum ñaxtu googu ndaxte préfet daal dinay gis ne yoon ba nga xam ne fa la doxum ñaxtu bi di tàmbalee ba fa muy eh, dem ak tamit waxtu ba ñu koy amee day fekk nag tali yi fees la ak oto kon loolu mun naa indi trouble à l'ordre public rax ci dooli tamit arrêté Ousmane Ngom day tere yenn ci ay yoon ñu fay amal ay toogaanu wala bokk doxum ñaxtu ci biir julikaay bi di l'évidence suñu naatango yi di ñu xamal ne alamuk ñi nga xam ne de ñoom ñooy waa a seen doxum ñaxtu googu ñu ñëw ci kàddu yi nga xam ne kii di Khalifa Sall moom moo ko daal di euh, fësal xamle ne moom candidat la euh, ci wàllu élection yu ñu dëgmal ci atum 2024 enquête yéene kaay ne Khalifa Sall fa Macky Sall jaaroon ngir daal di fay amal waxtaan ak taskatu xibaar yu bàyyeekoo ca RFI ak France 24 moom it fa la jaar maanaam benn fan dong lañ ci teg moom it mu daal di fësal ay kàddoom jëmale ko ci wàllu élection présidentielle yu ñu dëgmal daal di ci xamle ne moom candidat la ci biir colikaay bii di la témoin suñu natango koy tamit di ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne kii di Khalifa Sall daal dina koy fësal moom mi jiite taxawu Sénégal kon daal dinay xamle ne candidat la rax ci dolli nee na gisul sax lu koy mën a tere mu nekk candidat moom moomu di xalifa Sall ay kàddoom tamit autolikaay bi di la mandat daal dina ciy jukki ndaxte moom daal dinay woo ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ngir mu daal di indi ay leeral jëmale ko nag ci wàllu élection yi ñu nar a amal ci atum 2024 autolikaay bi di réew mi quotidien di ñu xamal ne bu ñu Macky munaatu ci nekk candidat ndaxte mënul am li nga xam ne moom mooy troisième mandat te it sax ma ngi koy ñaan moom moom di Macky Sall ngir mu daal di gën a fësal kàddu yi gën a leeral nit ñi firi leen baa mu lëcc leen ci wàll gi ni mel bu mu def wax waxeet ndaxte li ni mel moom askanu réewum Sénégal du ko nangu tey du ko nangu ëllëg ñu jukki ak culikaay bii di l'info ci ñetti opérateur yi di Orange Free ak Expresso ndaxte ñoom dafa mel ni ne waa ARTP rëq nañu seen ndigg daal di comp ci ñoom nag koppar bëri la ko waral moom mooy ne qualité ba ñuy joxe ci wàllu réseau euh, dafa daal di des loolu nag moom moo tax ba ARTP daal di teg ay daan ci seen ndodd l'info mi ngi ñuy xamal ne waa Sonatel ñoom dinañu daal di fësal ndàmpaay euh, bu euh, toll ci seize milliards fukk ak juróom-benn milliards ci suñu xaalis waa Free ñoom deux virgule cinq milliards ñaari milliards yu tegal xaaj ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa Expresso ñoom sax li ñu leen daan bëriwul ndaxte mi ngi toll rek ci benn milliard nañu kon ñetti opéra opérateur yi liggéey bi nga xam ne moom la ñu sàlloo woon ak waa ARTP dafa am ay manquement yu bëri yuñ ci nemmeeku loolu nag moom moo tax ba liggéey kaay googu daal di jël matuwaay yi ni mel laas yéeni kaay nekkoon waa ARTP daal di nañuy fëgg porte-monnaie wu ñetti opérateur yi ndaxte la ñu leen santoon ci wàllu réseau qualité bañ doon xaar ci wàll gi ni mel gisuñu ko ci loolu nag moom moo tax ba ñu di jël ndàmpaay yi ñi mel uculikaay ay mesures yi nga xam ne gouvernement bi daal dina koy jël ngir fexe ba indi saafara ci jafe-jafe yu tar yi nga xam ne moom laaskanu réewum Sénégal di jànkonteel ndax loolu am na fi njëriñ julikaay bii di tribune ginnaaw ba ñu defee seen gëstu ne furaas daal di xëdeen gis ñu si benn njëriñ amul benn mesure boo xam ne gouvernement bi tey ji jël na ko ba nag sénégalais yi daal di ci gis seen bopp ndaxte ba léegi lu jublu ci wàllu luwaas yi ba léegi dafa seer rax ci dolli tamit waxoon ci njëgu dund yi ñuy faral di jëfandikoo ba njëg gi dafa yokku jeexale yéenekaay du ñu xamal ne Coupe d'Afrique des Nations ga ñu fas amalee ca Cameroun benn weer dong moom moo ci des suñu gaynde yi war a daje ak waa Zimbabwe ci seen jogante bu njëkk suñu naataangoo yu culikaay bii di stade di gis kon ne Aliou Cissé war naa def kéemtalaay kàttanam ba nag yenn ci absence bëri yi nga xam ne ñoo ngi koy njort mu fexe ba du feeñ ci wàllu làmb Papa Sow moom mooy xamle nde ci li nga xam ne moom moo xew barke de moo Ndiaye ci combat bi naroon am ci digganteem moom ak Siteu defu ci lenn loo xam ne moom moo mujjee gàntal combat bi Papa Sow ne moom fotewul te ba xam kan moo def li ni mel moom li am ba des ak gaañu gaañu yañ ko indil ci bésub làmb googu daal dinay déposé ab plainte ci kanamu procureur lii moo nekkoon wax jëlukat yi li a fës ci biir ëccolikaay yii ñu leen di ñaanaan njeexteelu bés ak jàmm mesdames et messieurs bonjour Dakar risque encore de connaître une chaude ambiance et pour cause les mouvements Y'en a marre et Frappe France dégage entendent faire fi de la décision du préfet du département de Dakar Dakar qui a signé hier un arrêté portant interdiction euh, de leur manifestation. Mais qu'à cela ne tienne, nos confrères du journal Sud Quotidien nous font savoir que les mouvements Frappe et Yanamar ont décidé de résister à cette interdiction qu'ils jugent illégale et illégitime et qui prouve, s'il en était besoin, les graves reculs démocratiques en cours au Sénégal depuis particulièrement dans le domaine de la justice, peut-on lire dans une note parvenue de Sud groupe Sud Communication. Nos confrères euh, reviennent sur les motifs euh, évoqués par le préfet de Dakar. Tout d'abord, Mortalatine trouve que l'heure de la marche de 16h à 19h sur l'itinéraire rond Université euh, Cheikh Anta Diop, avenue Blaise Sandaga, avenue Ponty, place Soweto, cet itinéraire et l'heure entrave la libre circulation des personnes et des biens et le préfet fait aussi appel à l'arrêté Ousmane Gom. Mais que nenni disent les mouvements Yanamar

c'est juste 24 heures après la diffusion de l'entretien du président de la République Macky Sall sur ces mêmes chaînes. Ainsi donc, retenons avec nos confrères du journal Le Témoin que le patron de Taxawu Sénégal rompt le silence. Khalifa Sall, en mode offensif, déclare qu'il est euh, candidat en et il martèle qu'il n'est pas inéligible. Pour nos confrères du journal Le Mandat, Khalifa Sall reprend du poil de la bête. L'ancien maire de Dakar, non partant la dernière présidentielle, compte gracié par le chef de l'État Macky Sall. Et à propos du débat sur le troisième mandat dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères qui nous rapportent également les propos de Khalifa Sall que ce dernier demande au chef de l'État de tenir un langage clair aux citoyens. L'ex-maire de Dakar rappelle à Macky également l'importance du respect de la parole euh, donnée. Pour Khalifa il faut que Macky soit clair et net sur le sujet et il lui intime

les contrats qui les lient à elle. La RTP tape sur le porte-monnaie des opérateurs. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du quotidien LAS. Dans le journal Tribune, nos confrères aimeraient bien savoir les effets des décisions prises par les autorités pour soulager les Sénégalais. Mais hélas, retenons avec nos confrères du journal Tribune que c'est zéro effet sur le terrain car c'est toujours la même rengaine concernant le loyer et aussi dans certaines 30 concernant la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Le Sénégal est un mois pile d'affronter le Zimbabwe. Euh, selon nos confrères du quotidien du sport euh, Stade, Mendy, Ghana, Koulibaly et Sadio sont en quête d'ondes positives et le Sénégal aura donc un mois pour soigner sa colonne vertébrale un peu fragile ces derniers temps. En lutte, dans le journal Sunu Lamb, c'est persiste et signe et déclare qu'il n'a pas fauté. Pour ce dernier, le CNG doit trancher et en tout a une plainte au niveau du procureur. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.